I'm like that, Addis Moussa Ly ndeysaan basam di Ngaparou ndeysaan maa ngi si ziare Baye Abdou Faye di ziare Grand Abdourahmane di ziare Khalifa bu Ngaparou waaye fàttewuma toote naan ko gaay namu nañ la waaw waaw doomu ndeyu Adama Cissé borom Gambia waaw waaw ana mbin ñaaxar waaw waaw mbin ñaaxar bu liberté waaw waaw bu liberté ndeysaan jopati yel wa axlu lamb Sénégal a jawna dis Mouhamadane mu ngi lay xaar jopati yel sa doom day <laughs> Wow, wow, Wow. ana adam no ndigil la ndeysaan guddi na ala yenu na ko wow wow, waat na ndeysaan na ko wow, wow, waaw wow wow, ñu kalla ko mu ngi koy bay ndeysaan ñu xool mu ngi koy bay on a dit ñaaxar ndeysaan mbir dina génn waaw waaw laa ilaaha illallah waaw on daan na ko ndeysaan. ki ñu na mbir mag seen le grand champion kooku lañ naan mbir mag seen la Simal la fancérie de Mbour gaañu noonu ndeysaan nee na mer la fanaanoo suusalu kaari la indil gaa yi kooku mooy pàccam mu ngi ànd ak ndeysaan oh yaram daw na ndeysaan yaram daw na yaram daw na ay waay sama yaram daw na ndeysaan mënuma kaa muñ ndeysaan ndax mu ngi ànd ak rek ba ki nga xam mooy Baba Ousmane Mbodj mu ngi ànd ak ki nga xam mooy Babacar Mbodj rek Ousmane Mbodj ndeysaan sama place alors sama place Pathiam ndeysaan l'avant série de Mbour Ndine Mack Sène le grand champion la fanaanoo ndeysaan baran bunga nga desan mau mooy bëre anu. Angin dulu ngi Abdurrahman. garaan Abdourahmane borom nga faru ak desan. Iziar wa koy ziare ndeysaan di ziar waa axlu bi yëpp ndeysaan di leen yaram ndaw na ndeysaan billaay walaay la ma yëg la ma yëg ba jooy maa ko xam ndeysaan ami ko léegi mooy ruube Babacar sax billaahi ndax dama ndeysaan ndax nee naa leen boo laan gis Pàccam gis Ousmane Mbodj tey Ousmane Mbodj ñëwul Babacar Mbodj moo ñëw ndeysaan moo tax sama daw ma jooy ma ni la daa delloo mbàttu sandaala ah fa ñuy nodo la koy taaye yéen ma bañ i géej. si kat dañuy baral la mu kapalu tey ci biir ndeyjoor ak beneen jeeg. ñay baraan bu nga paru moom ki muy bëreel ay naataangoom lañ ndeysaan waaw ñoom ñaar na ndeysaan waaw waaw ñay koy dongole waat ko mu taxaw waaye li ngay tànte di ko tànte waat seetal leneen ndeysaan ñoom na doole koy oh combat nga sa ginnaaw day saf na doole koy taaye ren dama fa ndeysaan ngi saf de waaw waaw ñay baraan am na ngeen mu ndeysaan moom doomu nga paru ji ndeysaan tarkala waaye kii bëre si ginnaaw waaw waaw Abdou Karim Diouf mooy Mrim Kaabu Zawal mu ngay préparé ndeysaan li ma leen doon wax noonu ngeen di seet noonu si ginnaaw Babacar Mbodj ngi di romb ndeysaan ànd ak min mag seen le grand champion waaw waaw ndeysaan kooku làmb ko bëggu ndeysaan làmb nekk ci moom doomi simal la mbokkum ndey Youssou Thiam góor Rosalie ak mami billahi Babou Faye li tëgg neex na waaye kii woy tamit woy saf na Kumba Jaga li def am solo waaw mi

la ilaha illallah ñay daan nako ndaysan waaw waaw waaw ñey ndaysan waay ndaysan ñay waay da borom ko borom ko leena na gaaw am senegal on a dit soñu nonu ndaysan waaw waaw coppati yel borom ko kaparu borom sali ndaysan bokum ndeyum Adama Cissé bokum ndeyum ordi bu sali ndaysan neena na ba kenn mi la fi bayyi tay laa ilaha illallah doomu nday Libidor man maa la wax loolu moom on a dis ndeysaan on a ngi noonu nee na gaa yëpp lay raafal tey Cheikh Sarr ak monument bu Ndiando Cheikh Sarr ak monument bu Ndiando ndeysaan waaw waaw Cheikh Sarr jël na tànk ba seetaan waay laa xay lala ma xool moom monument si suuf lay lay lala Cheikh Sarr ak monument bu Ndianda ndeysaan waaw waaw Cheikh Sarr ak monument bu Ndianda Cheikh Sarr ak monument bu Ndianda deuxième tour ndeysaan ba tey Cheikh Sarr moo ni Mamou Ndiane ñaari ndaanaan lañ lépp si Petite Côte ndeysaan Cheikh dëkk Nianing mu maa dëkk Ndianda maa ngi si ziare waale Alain Ndour borom nga lax lu bari li Cheikh Sarr jël na ko wax na wax wa ñu dem si suuf o oh, ñaari mbarantaan lañ booy yi bëre nañ laay laaxee la neex na waay lamb acaf moo ci dàq ndeysaan ay waay bëre tànk ndeysaan ay jafa ka bele waay billahi wallahi jafa ka bele billahi laysan jafa ka fela billahi wallahi maa la ko ali waalur bi bëre raar maa ko ndeysaan Thank you. Ya Sarr ak ki nga xam monument ñu ngi dégloonte seen combat bi neex na waaw waaw Wow. gin gi néew démb ndeysaan maa nga woon Koutal lamb Vieux Ndiaye ak Grand Malick Samb mu saf saf ndeysaan neex waa wow kenn du ñoom ndeysaan si mim réew ziar leen waaw waaw maa la ko wax Cheikh tank bi rek lay wori ndaysan prise mo si tok ndaysan waye mo ni ñaan na ndaanaan la ndax xale la Alain Ndour bege na la borom da waaw waaw ñaning ndaysan sama xel dem na ci ma awo sama xel dem na ci Ali jaw sama xel dem na ci du sama xel dem na ci goro jaw mo grand frère talibé ba ba bi borom Espagne Wow, wow, Ndaysan, acha fa fela aca faka fela non na a aca faka fela wallaay moo déggul séeréer ngeen xam ne lépp dëgg la naa dégg de waaw dem na on sa xool ñoom ñaar laa ilaaha illallah mo ni bu njànd waaw waaw mu koy xëcc pour jël tànk bi waaw waaw arbitre pousa sama kanam ndeysaan waaw waaw arbitre arbitre laa ilaaha illallah arbitre jëluñu la ndeysaan alam lamb Sénégal kenn ñom waye wa suñu lamb tamit waye wa Sangomar TV wa kër yaa ndey Adama Jali ndaysan wa Mbour mbolo ma ngi leen di bëggee ji bi fere Kendo la waaye di xaalo ndana lu magi ci Canada borom wakam kenn du mom ndaysan waye président Alpha Ly gaay président ma wax len fu mu dem ñemul ciow mo tax muy waaw boy sere neena ma ko ba jagal mi way da may ñemewul coow ciow motax muy may sa saytaane waye nee ko oh nako mu rabbu waaw bare len Cheikh sar bu ñane ak monument bu ñande waaw waaw jël nako ko nako na nako daan na Cheikh sar daan nako Cheikh sar daan na monument bu ñande ak yo xam moy bu bulem Karim ak sawon bu bulem ndeysaan waaw Karim moo ñuul Samad mooy borom ngeblu weex li ta xees waaw waaw Rimka borom zawal ak Karim ñaari ndaanaan lañ ñaari bërekat lañ xeese booy ak ñuule booy ndeysaan nee naa la bëri ku si ñuulul da nga xees sa ñëpp a mën a bëre waaw waaw tay xale lañ aca fa ko mbele du noon na aca fa ko mbele wa ee daw na daw na daan na ko lu arbitre wax ah waaw. bilaay Balla xale bi. ah. arbitre bi yàq combat bi. combat Karim ba arbitre bi ko yàq. cey. xanaa li ngay bëre doyu ma. ona. li ngay bëre doyu ma. li ngay bëre doyu ma ona. laa ilaaha illallaah. gis nga ko. xanaa li ngay bëre doyu ma. waaw waaw soldaaru baay bëre foofu soldaaru baay. bi muy bëreel laa xamul mooy kan waaye soldaaru baay soldaar a nga koy buub laa ilaaha illallah soldaaru baay nee la combat dóoram ndeysaan daa ngay bëre bay bëgg dem mu ko la eh eh laa ilaaha illallah soldaaru baay moo war ndomba noonu ndeysaan sa waay waaye moytul ma loolu booy bi laa ñu suuf ñaar suuf berupa Hasan Sisbin Daisan wa wa borom sali Darus Salam berupa Hasan bayi non mom soldar la ilaha illallah soldar dan no kon Daisan jël ba reyna la ilaha illallah eh bokali Dakar moy audio yi may dugal man wow moy aso di wax rek li ngay ndeysaan ah, waaye Samat mu ngi bëre moom tamit la ilaha illallah ona boy baa ngi jom eh ona ona ona baaxul ba des na waaw waaw ona daan na ko ndeysaan oh, daanu na moom tamit ma xool eh moo daan nee nañ moo daan Samat yàlla dafa def lii waaye ba ma filmé ba pare. man sa sëriñ laa maa loolu yëpp du problème. waaw naa la respecté. maa ngi nii de booy. nice. ndeysaan ànd maa ngi noonu sama caméraman waa ànd nga xam ne nii première édition drapeau waaye li moy quart de finale ndeysaan waaye ñay baraan mu ngi waaw waaw eh Cheikh sar wala Cheikh sar Cheikh sar yenu na boy ba ci kaw door ci suuf ndaysan door ci suuf ndaysan waaw waaw Cheikh sar bu daan na waaw waaw ak boy fay jegaan ak ak temps moy boy fay bu sali boy fay bu sali waaw waaw du

Mamadou ak Boy Faye bu sali ndeysaan waaw waaye beneen combat bi ñey baraan la ak kan ndeysaan quart final poids léger yi la waaw amul ngàdd nee leen tàpp rek doomu Zawal ak doomu Saly lépp di Petite Côte ndeysaan lamb Petite Côte la fii ci Géej ndeysaan mais boo demee ca Fatick waa arrondissement fi mu la ñu def lu neex waaw waaw bu Simal ak kaan njangar bu kambu maa tangaan ay waay kooku mbokkum ndey ngóor la ndeysaan waaye më ne kuuk ndeysaan ba njeej ak ñaamboor oh. forra arrondissement derby ya ca demi finale foofu ca Fimela ca afatik a Fatick arrondissement Fimela ñoo sa Fatick waaw waaw la ilaha illallah loolu lay fay eh, ñey baran jële tànk bi ñey baran jële tànk bi képp ko daw ak moom ñey ñey baran bi la ilaha illallah nga baru ji ñey oh ñey war na ko ñey daan na ko ndeysaan waaw waaw waaw ñay daan na ko waaw waaw ndeysaan si ka mbayam baa nga noon di daw di ñëw ndeysaan di diggante Modou ak Boy Faye waaw waaw arbitre sifflé na ana di bëggee champion ma ta Saline ona jël na ko ona jël na ko ona jël na ko bi waaw sama daan na Don't know no. Mbaye Diané ak Cheikh Sarr bu Nianing. Mbaye Mbaye Diané ak Cheikh Sarr bu Nianing. Ndeysaan combat baa ngi noonu. Ndeysaan ak Cheikh Sarr bu Nianing. Mbaye Diané ak Cheikh Sarr bu Nianing. Cheikh Sarr suñu càmmoñ. waaw waaw Mbaye Sarr Mbaye Diané suñu ndeyjoor. waaw waaw. noonu la demee ndeysaan kooku mooy Lamine TV waaye beneen quart de finale bi mi ngi ndeysaan moom laa fi nekkal na koy laal li maa la wax loolu ndeysaan biir arène borom Mbour maa la wax loolu ragalu ma ndeysaan borom Mbour TV chaque mercredi waaw waaw à partir de 20h day saf day neex biir arène 100% lu simple waaw maa la wax loolu loolu dafa leer waaw waaw Cheikh Sarr mu ñaan lig na kala 1 million après korite waaw waaw waaw Cheikh Sarr lay la Mbaye jël na Cheikh Sarr kol na ko lay la xelala daan na ko Mbaye Thiaré daan jël bu la waaw ak Idi bu ngëriñ ñaari lañ Idi bu ngëriñ le retour ndey idi pa jam ndeysaan waaw waaw moog idi bu ngëriñ waaw waaw loolu day saf day neex Bajam yi di bu ngëriñ ndeysaan di ñaanal Ousmane Mbodj yàlla yërëm ko ta xaare ko àjjana di ñaanal Assane Gueye di ñaanal Mamadou Lamine Dabo Mbalka Mbouleem Pape Samake di leen ñaanal yàlla yërëm leen ta xaare leen àjjana ndeysaan Bajam yi di bu ngëriñ ñoom ñaar ñu ngi ci ndeysaan di bu ngëriñ ñu won waaw waaw ñu ndey Bajam def ngemb weex ya, li ndaysaan laa ilaaha illallah docteur bu Sandika moo woote fii tey technique 1 million poids léger 300 000 poids lourd 700 000 ku jël poids bi di nga am 400 000 ku daanu am 200 000 ñaari demi-finale ku nekk 50 000 waaw waaw waaw nga koy dem a jël ci kaw mais it gis na ko. waaw ah, waaw waaye dama leen tànk yi tey daan acafa acaf 300000 lañ ci teg ku ko jël di nga ku daan am waaw eh jël na ba mu xalab loolu gisoon naa ko jël bu mu ko defoon foofu sa la am na ku mu ko daanee woon waaye idi da kaa gis laa ilaaha illallah idi pied droite Pathiam pied gauche ndeysaan idi ngembul vax Pathiam ngembul plan teg Senghor bu ngariñ ana tumani ndeysaan waaw waaw mo dan sawu Mali ndeysaan waaw bajaat bajaat ndeysaan bajaam idi bu ngariñ la ilaha illallah retour bi day saf wala landa tusalu kaane wala landa pajam idi bu ngariñ ndaysan waye ma ngi seen Ama balle si digi geew bi Ama balle kan la Ama kay balle ak simo bu borom nag yi ndeysaan simo Simon Ñoojoor mbokkum ndeyim américain nim fa nin ci fatax kor fatu alfa Ñoojoor nee naa ko tour ye bari waaw waaw ak ak ak oh, lamb Sénégal waaw oh, moom la ñuy wax ni Pa Thiam ndeysaan bu bëri waaw Matar Ndour borom Thialé bokkam dari Serigne Bour boor bu ndembeer ndeysaan borom Thialé ñu noonu Njom fa pelelum ndeysaan ay yi neexang ci diggi géew bi daal en tout cas waaw waaw Pacaam mu ngi koy yóotu pour jàpp ko idi na loxo bi ci kaw waaw waaw arbitre boo ñu ko doon may dina neex waaw waaw idi ngi jël tànk bi jël na tànk bi pa ko Eh, idi tànk bi rek la gis su ne idi bu ngoriñ pacam le deux jeunes lutteurs dynamiques technique tactique ndeysaan ñaari ndaanaan lañ idi bu ngoriñ pacam ñoom min nañu stade bi waaw waaw pacam am na ngemboli idi nga koy dindi waaw bëre nañ 3 minutes 55 secondes ndeysaan waaw waaw pa rëpp waaw waaw rëpp na xëcc na ko ndeysaan takk na ñu xool ba xam ni da koy boot waaw waaw dem nañ suuf laa ilaaha illallah waaw waaw waaw paa nee li lan la ndeysaan paa nee li lan la ndeysaan paa xëcc na ko nee waaw waaw waaw waaw nee na mooy borom buur gaa yi nee na la yuuxu mu dégg nee na yàlla rek mooy buur ndeysaan billaay wallaay taalaay li la dal si diiru deux ans boo ñëwaatee rek xamal ni kër mi nga ndeysaan tey miin mag seen Babacar Mbodj ngi noonu di rek Ousmane Mbodj ndeysaan waaw waaw laa la wax loolu moom miin mag seen la waaw waaw maa la wax loolu lamba la bëgg day ñibbi man gëm naa la waaw day ñibbi maa la ko wax sii du deux la ci dal boo ne ko woon gar mi doo ñëwaat ndeysaan na fan waaw Desan koma taxaw wow wow waaw diggante pacham ak desan dom ndeysaan doom ji ak grand bi ay way fuma ma jëm bi combat neexuma ndeysaan combat bi neexuma ndax ki nga xam ne ma yaayam ak ki nga xam luma don tay ci làmb ñoom ñoo ay way ikiri jama de combat bi neexuma ndeysaan Ngagne la ak bin sen le grand champion ay waay waay waay bi combat neexuma sama gaay yi laa ilaaha illallah waaye lamb bu jeexee jeex na ndeysaan saan le meilleur gagne waaw waaw pàccaam ngañ seen ndeysaan waaw waaw pàccaam dabu na tànk bi waaye ngañ gis na ko waaw ngañ jël na tànk ba jël na tànk bi ndeysaan ngañ jël na tànk bi mu ngi dëj ndeysaan mu ngi koy dëj ngañ daan na pàccaam ndeysaan waaw waaw laa ilaaha illallah génn na ca Pakala nga koy asane ba tey mu ngi koy asane ñoom ñaar ñu nga ca laa ilaaha illallah daan na ko ndeysaan daan na Simon Jaata Karim ndeysaan waaw waaw Jaata Karim ndeysaan ñu ngi ji ñaar Jaata Karim ndeysaan ah Fatick déglu ma de sant yi Boy Séré foto loon nga ma mbëri foto woon nga mbëri envoyé ma ko sama whatsapp waaw fo envoyé ma ko sama whatsapp waaw waaw jaata Karim ngoobu na ko takk ko dàq ji ko la ilaha illallah oh oh la ilaha illallah lu arbitre di wax lu arbitre di wax jaata daan la ilaha illallah allo ah ah lamb ji jeexagul de non non amu bariwul woon ne mbaru mbuur yi rek ñoo fi nekk waaw demi final poids léger lañ toll nii waaw waaw waaw ah waaw xaaral tuuti nga waan ma ma après ma def la si ok waaw waaw Somone ak Soldaaru Baay Somone ak Soldaaru Baay Somone ak Soldaaru Baay Somone ak Soldaaru Baay Soldaaru Baay war na ko ndomba ñaar ñu ngi bëre ndeysaan waaw waaw Somone ak Soldaaru Baay première demi-finale waaw waaw ndeysaan Somone Somone ak Soldaaru Baay ndeysaan waaw waaw saman soldaaru baay daan na ko waaw ñu ñëw si beneen demi-finale bi ndeysaan ñay baran ndeysaan deuxième demi-finale baa ngi noonu soldaaru baay moo taxaw finale ndeysaan ku daan dajeeg moom bay jaane ak ki nga mooy ñay baran ndeysaan waaw waaw mboro ah, Pa Abdou Faye bi ndeysaan kan moo bind noonu ma xool kooku la gom doo bàyyil bind maa si Aliou te dañoo nekk ci Aziz Bala ndeysaan président des managers de la Petite Côte grand Abdourahmane la ñuy woy Abdourahmane la ñuy woy eh eh eh ku may teel li eh ku may teel li mooy eh grand Abdourahmane la ñuy woyal de booy doo doo ko feccali mu ngi noonu taxa noonu sol maillot bi noonu si ginnaaw axlaabu Sénégal Abdourahmane la ñuy woy noonu waaw grand Abdourahmane Safarou moom la ñuy woy noonu grand Abdourahmane dama mënta jug dama jàpp waaye xoolal xalaat a ngi foofu ndeysaan booy séeréer dawal ma laa ilaaha illallaah oh zongale na ko ndeysaan mu bañ. waaw dara Abdourahmane bu axul lamb Sénégal bu bopparu moom la ñuy woy moom diggante ba Ndiaye fecc si ginnaaw ah, ah, la ilaahi neex na Wow, nyai barana ngay dur tànk ndeysaan waaw Wow, waaye ki ngay bëral da di ndaanaan muy mbay caane lay la xay la ko combat dina saf dina neex dina ala daw me ñay brown ak mbay caane grand contre petit wow, waaw seen morom la rek ndeysaan teel a bëree ko sonal ndeysaan gara Abdourahmane borom nga paru ndeysaan ak a gaaw fii junni ndeysaan ma ne ko gara Abdourahmane ak a gaaw maye junni cas social ballo si cas social ko ñi joxe junni la àndal xam nga ni laal yoon xëyul gontul fu lamb am mu bëgg a dem kon xam nga ni buy dem rek ndeysaan les les amateurs ñoo si jàpp a roga yelmine ba tey si deuxième demi finale bi ndeysaan diggante ñay baraan ndeysaan ak ki nga xam ne mooy Mbaye Thiané ndeysaan waaw waaw bo seere may ma ko waay waaw waaw ñay Barane ki nga ki nga waaw waaw na tank ba ñay jëlan na tank bi mbot ñu ngi dem ndeysaan top nako la ilaha illallah ñay laa ilaha illallah Mbaye Diané loolu la a mën dina la mboot dina la mboot waaw waaw capitaine loxo bi capitaine loxo bi ey laa ilaha baraan war na ko waaye kooku wër ndomba daanu ko ndeysaan mbër mu mag la te mbërëntaan la ndeysaan waaw waaw les trois arbitres ñu ngi taxaw ñoom ñëpp di déglu di xool waaw ndeysaan ziaral ma la caw calalo xiir gi ndeysaan awaaw ah, maa la wax loolu jibi fere ndeysaan njoba fele ndeysaan ndeysaan baraan war na doom ba mbay caane taxaw ni di déglu ma ne ko kooku loolu daanu ko ndeysaan ndax mbër mu mag la dandaanaan la ndeysaan waaw waaw sii ndaw jaate joob waaw waaw war na ko ndomba daan na ko ndeysaan nee na xaalis bi si loxoom ndeysaan nga paru la koy yóbbu ndeysaan mbaru Mbaye Abdou Faye baa ngi noonu mbaru Gara Abdourahmane bi ndeysaan mbakum ndeyum toote mbakum ndeyum ona laa ilaaha illallaah saa waay nee xool ma waaw waaw ee eh, reena reena ree rek lay def ndeysaan <laughs> nga parok sali ñoo dem final ndeysaan ee eh, génn leen géew bi génn leen géew bi génn leen géew bi waaw waaw beneen demi final baa ngi noonu Ngagne Sène Ngagne Sène ak Mouma ndeysaan Ngagne Sène ak Mouma Mouma jël ko ndeysaan Ngagne Sène rasu waaw waaw Ngagne Sène ak Mouma xaritoo amu fi xaritoo amu fi de rek waaw ndeysaan bëre leen si fula si fayda laa ilaaha illallah ngañ ak ki nga mooy Papa Gueye ndeysaan mu ma ak laa ilaaha illallah Papa Gueye li ngay bëre neexuma. bëri ci fula fayda ak jom amul xarito amul maye. lamb amul maye ku jël na may moromam ci xaalis bi waaye amul maye nii. waaw waaw. ndeysaan. Aya Tonton abale li laa ilaaha illallah abagay ñay tànk wër abagay li ngay bëre neexuma ndeysaan Papa Gaye bëral la ilaha illallah Papa Gaye demi-finale la ilaha illallah Kossi nee ko bàyyil demi-finale demi-finale rek loolu day bëre a jël drapeau bi mais dem la ilaha day saf day neex diggante Papa Gaye en beure len ndaysan bu len ñu guddee lamb ji warna naa teel jeex ban heure jot ah waaw jël nako ñu dem Papa gay ak Ngagne Sène Papa Gueye ak Ngagne Sène ndeysaan minuit 33 làmb Mbour mën ta fay jeex ba avant 23 h i gay bo bo boo lamb ji jeex Papa gay bo bëree lamb ji jeex amna luma fi waxon sank way na ko dolliwaat bakala law bee ko moo daan jaata jël bu leer nañ waaw waaw daf may lu fa waxoon sànq waaye naa ko dolliwaat. waxaatal. ma waxaat. waxaatal doom yaay. borom bu waaw ak ah ñu ngi dendoo ñu ngi waxtaan li jox kaasante de. candum waaw. man kii sol laay. bu da ngay dem diggante nga jël laa ilaaha illallaah ngañ seen ak Papa Gueye ngañ seen laa ilaaha illallaah ngañ ngañ ngañ plaqué na ko ndeysaan daan na ko ndeysaan waaw waaw final poids léger ak ki nga xam ne mooy soldaaru Mbaye ndeysaan cinquante lañ woon ba ñoom ñaar ñu bëre ba ñëw taxaw final ndeysaan waaw tey di le 10 ndeysaan tarkala macha allah le 10 avril fii si stade municipal bu Mbour docteur bu syndicat wooñu fi teg mise million ku daan di nga am li nga xam mooy 150 mille ku daanu di nga am 100 mille francs les demi-finales dinañ am ku nekk vingt 25 mille ndeysaan leen i bége di leen ziar ngeen ndeysaan yéen ñi nga xam ne yéenay bége laal yoon deel yoon borom petite côte borom biir arène ragalul day saan les amateurs de la lutte ndeysaan lutte traditionnelle kenn du day saan bége naa leen kontaane naa leen képp koo xam ne yaa ngi bége lutte simple bi maa ngi lay kontaane waaye lutte simple ku ko bëgg a yàq ku nekk yàlla na la yàlla rey maa ko wax la ilaha illallah final a ah. caf ndeysaan a caf a caf a kambela ay waay a caf waay moo dàq ci làmb de 20 millions xaw ma 25 millions de waaye dinañ ko def 4 poule ndeysaan buñ bëggee jàmm nag waa léegi day am de poussière am raw gàddu am ta waa lay la xay la bëgg ponkali ñu puusante ko seen biir daal di koy jël day yomb bëre wu ñu dara jaruñoo joxe million te xale yi ne fi final baa ngi noonu diggante Ndiaye Brown ak soldaaru Baye Laila, ilaha illallah kori atv kori atv tiringala oh dor nako tank mu soldaru bay la ilaha illallah way bu de combat dor na kanam gi lay maye kur peñi di tak ba mu newi mu mu dari di sëlmu selamat rek bu ñewi sa kaw wax jommi de xam ni daanaan egsi na la ilaha illallah rek lay def day reba dal la de day bakka ba këpp si suuf doog laa daan. borom rey. ndeysaan. borom trian la da def live. monte bi montel montel ma ci oy ko ri borom Sangomar TV mbokkum ndey Bili Boy bu borom bisin ak Aso Ndong. ka police ndera Allahu akbar Allahu akbar billahi wallahi jalo Babakar kor sunam deglo waaw doom ji pro mooy romb noonu ndeysaan laal yoon dawul ci dara ci lim la jur de yaa ma yaayoo ku ma yaayoo ma doomoo la Laluan hari xaritu mbër yëpp li fallu biram bi nan naan laal yoon mu ñep wa laal yoon a ngi ni de laal mu ñep ragaluma loolu ndaysan luma don doon igri jamba gande la a grand tonnerre le grand champion Demba Diawara nee naa ko yama ma ci lamb suma la topon bana bu yag ndax ba nga baye lamb yag na ndeysaan séeri Aminta fay ma ko luma am ci lamb yow la ndax yama lan tagul sama mam di ma yóbbu waaye gaya ngay beure ndaysan yaa ma lan tàggul sama maam di ma yóbbu fu ne ñëw ndeysaan laa ilaaha illallah nga jëm sa saako yow oo xalam na ko mu daanu ndeysaan ay way ñay baral xalam na ko ay doomu nga paru bi laa ilaaha ñay la ka waaw waaw da doon jël tànk mu xarab ko ndeysaan ñay jël na tànk yi ndeysaan ñay baral looy wax gaay ah kontaan rek billahi nasib na keroog nga finalu fi nga xam ne moo di ndeysaan demi finalu fi nga xam mooy Zawal ñàkk day nga ñëw Petite Côte daal di koy jël looy wax kaay yi billahi tey ji bakkan bilaas tey bakkan bilaas tey la fii billahi ñay barana ngi noonu ndeysaan war na yàlla Abdou Faye bi war na yàlla kontaan rek bi di la kontaanee si ka baa ngi si ka mbay wax Wow, wow. Ah, wow, wow, wow, wow, Wow, wow, wow, wow, wow, wow, Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow Final. Wow, wow. La ilaha illallah bananin. Bakalalaw be mo ñu won ginaaw non def ngembul vaccine ngañ lañ jakar lol mo band li nga xamne moy épaule bi ndaysan ñom ñaa ñu ngi deglonté ñamante nañ ku nekk xam nga sa morom limi saf waaw waaw ñoom ñaar ñëpp pied gauche dañ teg ndeysaan laa ilaaha illallaah sama batari bi vide na ndeysaan tey Bagala ak nga xam ne mooy ngañ Pakala Lawbe ak ki nga xam mooy Ngagne Sène ndeysaan waaw dem na jëlaat ko ndeysaan waaw waaw Pakala dëbb ko naax daal di rasu ndeysaan waaw waaw laa ilaaha illallah bàyyante waat nañ Pakala Lawbe ak ki nga xam mooy Ngagne Sène ndeysaan loxo bi tey bu ko sàmbi la ko kalalaw be ngi sigi di ko xool tàllal ko tànk bi ràcc ko ndax pa kalalaw be kat la ñoom ñaar waaw waaw Pakala Lawbe jàpp na loxo ngañ ngañ ko bëgg a dindi Pakala Lawbe ko bëgg a jàpp xëcc ko pour code filé ko ndeysaan waaw waaw na jëli ko daan na ko ndeysaan laa ilaaha illallaah ñu nga sa suuf ñu nga sa suuf ñu daan na ko ndeysaan doom ji pro jël na làmb ji waaw